dal leen ak jàmm ami site internet réew mi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek tremblement de terre bi nga xamante ne moo am foofu ca diwaan moom ministre de l'intérieur bu marocain daal dinay joxe ab xibaar que ne 820 morts ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy 672 yoo rek ay blessé lañ ak 205 yoo rek jamono ji ci cas bu grave gannaaw séisme bi nga xamante rek moom moo fa daal di am niki démb frappé nag Maroc ci guddi gi ba tey nag bu ñu jógee ko foofu nag dañuy addu rek wutali yéen kaay bii di l'observateur la mu daal di xam ne rek mooy gàtta gàtta gi nag door na ndax kii di Macky Sall rek jamono ji ma ngay commencé di souffrir bu baax a baax ndax li nga xamante ne nag moom moo des ci ay élection présidentielle léegi benn benn rek waaye kii di Macky Sall nag am na problème dëgg rek pour def li nga xamante ne nag moom mooy ab choix am ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy F24 nag niki dimanche bi nag dinañ def bruit yëngal fi ba mu saf sàpp ginnaaw bu ñu leen teree rek ñi amal bi nga xamante ne